def ndànk boy pousse leen pousse leen boy pousse grand yaa ngi si amoo fi amoo fi xale nga daa réer daa bàyyi yoonam seen del insisté naka la ko daane naka la ko daane naka la ko daane. biir këram. billaahi. biir këram bu ko doon jëlee dana gën ngay daan. ñun ñoo ko mën fuuf nga bu ko doole màgget na gaynde gi màgget na. gaynde daane noo la ko daane noo ko daane. ah. xam la gaar yow lii du lamb lii lii du lamb barki Serigne Saliou lii du lamb Balla Gaye moo mën fukki Balla Gaye fii sunu pencum maam la stade bi ñaay Balla Gaye koo xam te xamuñu ñoo mën ñoom doole lii du combat sax digin lii du lamb barki Serigne Saliou Mbacké lii du lamb Balla daa bàyyi yoonam yow yow daa nga réer bàyyi nga sa yoon yow yow yow bàyyi nga sa yoon affaire booy ñaala ñun booy ñaala lañu topp ñun booy ñaala lañu bëgg billaay affaire bi booy ñaala Pikine c'est la pikinité rek pikinité booy ñaa macha allah jakaw jakanam takk daan nag waaye géej waaye nañu kuusu ji nañu kuusu ji te tëddi nelaw sa yaay jura borom Pikine ñoo ngi lay ziar maa ngi si jàmm maa ngi si jàmm ba combat bi Balla Gaye lu ñu ko musul def tey moom la ko Boy Niang def. lan la ko def. Boy Niang da ko Boy Niang da ko wan ne man xale laa Boy Niang da ko wan ne man xale laa Balla Gaye tey na xam ne ne waa Pikine lu mu mën a moom. xool xool xool Eumeu Sène dañu ñëwaat dóor ko mu daanu. Eumeu Sène. suñu mu ko daane suñu mu ko daane bettu la. non non bettuma parce que Boy Niang dafa mën a bëre Boy Niang dafa mën a ma bilaa wala Boy Niang dafa mën a bëre non man li ma gisee làmb ji sport mais sport bi yàq nañ ko mu tax te guddee di toog ba 10 heures ci ah moo pareegul woon mais non non bi la ak gouvernement bi c'est pas vrai mbër cinq heures bu jeex ku nekk ñibbi mais lii mooy indi vandalisme bi lii mooy indi mani man dama seetaan laa ma ba retraité ku seetaan foo tëdd suba Demba Thiaw ba ba Mbaye seetaan nga làmb ñun du ak double sa Mbaye Gueye di toog ba 10 heures di soog noo gisee tey boo ñaanoo ci kenn faraluma ci kenn man je suis neutre c'est le Sénégal qui gagne c'est le Sénégal qui gagne c'est tout. mais tey noo noo noo dundee ko. non comme papa wax na rek amatul dara ma leen lu may wax. mais nit si wut ñëpp kontaan moom ñëpp kontaan moom wax dëgg yàlla. te nu mu bëree bett leen. non non bettuñu boo ñaa mën naa bëree. na boo ñaa boo ñaa mën naa bëree ne léegi xam nga problème nañ mu loo rek waaw Modou Lo Boy Niang Modou Lo mooy combat ko jox rek Boy rek mooy combat na. ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay. nu mu tey combat de. c'est-à-dire ku ni mu wëree te daaw ko bëree. waaw déedéet xëy na yàlla dogal mu jaar mu war a daan mu jaar fi. lan moo ko manqué ko yàllaa rek ndax yow wërtu daan warul daan ko daan yàlla yàlla jàppale wala wala. waa ba jaaxaan tey la mos a daanu ba jaaxaan mosut am c'est un grand lutteur mais tey la mos a daanu ba jaaxaan lii mooy cinq appuis. du cas boo jaaxaan lu mu bëree tey jaaxul leen bett mbër la rek mbër la rek c'est tout xale la mën na bëri. mën na mën xale la booy ñaaw. ah fan la war dem. fan ci combat kuñ ko war ah xaw ma ko de mais yaakaar naa moom Modou Lo xanaa naa duñu war a sore Modou Lo waaw. Balla Gaye jàppoo ne carrière boo moytuwul ah. yàqu na boo moytuwul mën na yàqu. Ah. Balla Gaye Balla Gaye. ah carrière boo moytuwul fii nii mën na fi jaare ah de mu ngaa gis yàlla nag loolu yëfu yàlla la xaw ma ci dara <laughs> yëfu yàlla ñu muy kontaagal kenn ki nag moo ëpp doole fukki yoon Balla Gaye billaay wallaay taalaay mu sumee ko gaa naan amul doole dañoo dof rek xamuñu Reug Reug day daan Sa Thiès Reug Reug jël Balla Gaye ñu daanaat Balla Gaye nee na may leen ma may leen ma may leen ma may leen ma Balla Gaye ngi laay war a soli delloo avance amu seen bi day gën a ñaaw ñaaw xoolal am mi ma gis nii da koy jekkali far benn yoon na na dem njaax buri bàcciri di ko defaral soow muy naan lambu xale la Boy Niang ña ñëpp la ba daan na génn ñaar rek du Balla Gaye dàq bëre boo Niang wax leen wax ju am solo bu lamb ji jeexee moom rakkam dina ko confirmer la ko lamb ji maa fi dàq bëre booy bi amul ku koy daan si kaw suuf si lamb ñaari defet la am joso ko daan ak euh, booy lebu bi ñi ci des ñëpp kenn daanu ko Tapha Tine gën a woo si lamb ji daan nii la Boy Niang ah Lac moo gën a os si lamb ji daan nii la Boy Niang kon Balla Gaye fan lay jaar boole nan la ma xam te dëgg yàlla tax ale la na ko daan na ko géej waay kenn dina duma raawale na ko duma na ko daan na ko ba rek xale wax ma wax ci combat waaw mais waaw. noo gisee combat bett naa la mais su ma nee su ma nee su ma nee bettu ma sincèrement je ne serai pas honnête parce que Balla Gaye moom li muy def existé tul sport di tricher quoi parce que mënoo am niveau bi nga am. Euh, jël jël quatre combats consécutifs des des combats yoo xam ne c'est des combats soog ki ci gën a neex xale mooy. Boy Niang nga bëgg a ñëw ndax say supporters tëxañ tëxañee ko si ay infraction de seconde mais tamit minimum c'est le respect quoi. waa lam waa waaw waaw foofu la toll quoi businessman la quoi mais booy bi moom mbër la ñu koy félicité di ko ñaanal suñu borom musal ko ci cat ak lamin lam ndabam li jik ko ba prochain combat yàlla may ko victoire. mais jàppoon ngeen ni ñaa mun na mën na bëree nii. waaw man personnellement moom daf daf ma métti personnellement mais nag en toute vérité. Pikine ñoo war a xam ni danoo war a gëm suñu bopp jàppale sunu bopp fonk sunu bopp ndax ñun amul lu dul banlieue di daw di làqatu ci ay ginnaaw ñeneen ak feneen wala am génn fi dem di di sime fi nga juddoo fi la may teraanga moo war a jeex ñun on est fier d'être pikinois on est fier d'être des banlieusards danoo war a gëm suñu bopp bu nu amee dafar suñu gox jàppale suñuy sportif jàppale suñuy leader xam ne ñu ni ñu ni nee na lu ñuy jéggaani feneen am na fii na suñuy leader xam ne ñun ay pikinois lañ ñu respecté ñu fonk ñu booy Niang tey Pikine la sigil quoi qu'on puisse dire drapeau Pikine la yëkkatiwaat ba ca kaw di ko ñaanal suñu borom may ko gudd fan gu ànd ak wér loolooy dëgg. Balla Gaye la la leen laa bëgg a wax rek waa Pikine neen ñëpp ngeen déglu ma bu leen bu leen ragal bu leen tiit ñu dañoo am ay mbër te dañoo am dañoo confiance te dinañ nekk benn ñun ñëpp incha allah. gars yi dañoo bëgg a tas Pikine te Pikine du tas ci ay waxu kese koo tas incha allah billahi wallahi taala Pikine dinañ booloo dinañ nekk be waxuma la 100 pour cent de 1000 pour cent la nekk incha allah dinañ ñemm ñeneen mbër yëpp te dinañ daan ku képp kuñ bëgg a daan dañ lay daan parce que Pikine lépp fii la sosoo géejuwaay ñun ñoo ko jur géejuwaay lu fa mënta xew tey ñun la affaire Pikine la Balla Gaye fii la ëpp ay supporters voilà ay mais ñun gëmuñu leneen monsieur le maire Amadou Diarra félicitations à ak maire Issakha Diop. nee na ñoom jàppale nañ Boy Niang. ñu yëpp ak ñu ak ak ak Timbo ak Modou Gueye ñoo ñëpp jàppale nañ jàppale nañ tey ren gox bi mais dama laa bëgg a wax benn affaire Balla Gaye na bàyyi ndax ay supporteurs am ji bu jeexee jeex na jeex na ah. jeex jeex na jeex na Balla Gaye loolu la doon wax magam yi jeexal ngeen jeexal na bi non ci moom la ñëw léegi eh jeexal na bi ci moom la ñëw de. moom na xam ne ne jeex na bu jeexee jeex na la boo Niang ba mu wax moom moo taxoon. ñu ngi lay ziar di la delloo ziar bu boole ñun ay 100 pour cent Balla Gaye lañ dañoo bëgg Balla Gaye barki Seydouna Mouhamed mbapat lañ ko topp ba arène yaa ngi dégg mais damay ñaan Balla Gaye li laay war a sóori moom mu bàyyi làmb parce que bu bàyyiwul làmb ñun ñooy dee esaat. midi lañ toog stade lekkuñu naanuñu barki Seyduna Muhammad ngir yàlla message la bu ma koy lancé na bàyyi li ñu soxla woon yëpp defal nañu ko amatuñu dara moom lu mu ñuy prouver ci làmb li ñu soxla woon yëpp Balla defal nañu ko na tekki ngembam ngir yàlla jëmmi Serigne Saliou Mbacke mu ñu bokk. lu tax ngeen war a bàyyi. dafa war a bàyyi parce que doole ci xale lay nekk. ba léegi nekk na ci ay tolof tolof dëgg la mais dama ne la ñun ba ñuy topp Balla Gaye ñu ko xam bëriwul Birahim Ndiaye ak sama papa seen yaay ñoo bokk nday ak baay da ko daan tëggal combat lendemain tabaski terrain 22 ñuy dem ma ñooy tingoom may seetaan Balla Gaye dama bëgg Balla Gaye barki Seydina Mouhamed mais na bàyyi bëre jàppale saa kees waaw ñu bu baax tey noo dundee làmb waaw xol bu sedd rek xol bu sedd rek ñun ay doom Pikine lañ man Kër masaar laa dëkk Pikine laa juddoo yaroo fi màgg fa ba toll nii dëkk Kër Massar mais lu xew Pikine maa ngi fi ba léegi ñu xam ni suñu sang benn la li ñuy ñaan yàlla mooy ñi nga xam ne dañuy jéem a tàqale ngir yàlla xale yi soog a juddu laay leeralal ne leen benn bopp la mës a doon ba niñ toll man mi ngay gis ne amoon naas la wax de soo laalee Pikine danga may laal damay xeex. màggataguma yaa ngi dégg ñun Pikine lañ gëm dañuy ñaan nag Eumeu seen muy Ama muy Boy Niang muy ñoom ñëpp yal na yàlla def defal leen gudd fan ak wer wéral seeni cër wéral ko ñun ñëpp ñuy ñaan ñi ci topp muy Eumeu seen muy Ama yàlla may leen ndam lu sedd seen xol tamit incha allah. mais mais damaa damaa gis à chaque fois koo jox da daan Pikine doon benn Pikine la war a la mbëri la ñoo doon benn wala. non mbëri ben doon nañ benn mais gis nga ñu ñu wër ñoo ñuy jéem a teg xel. mais yeneen ay ay Géejawaay ay Parcelles ay ay Fass mais ñoom ñooy taxaw ay Pikine doonul benn di jéem a jaxase mais ñun ñu xam ne ñoo fi juddoo yaroo fi ba tool nii màgg fekk fi Pikine xanaa ngay luyaas dëkkoo fi nga ñëw di jéem a wax leneen mais ñun ñi nga xam ne ay pur sang lañ benn lañ kenn mënuñoo tàqale looloo dañ ñu naan le benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar xanaa nga nekk luyaas dëkkoo fi xamoo Pikine mais ñun ñu xam Pikine juddoo fi yaroo fi ba tey benn bopp lañ. ma sotti sama xalaat rek mais xoolal man sama wax du bëri quoi man ni ngay gisee nii yàlla xam na ni du ma seetaan sax lu bëri mais mbëri Pikine yëpp suñuy mbër lañ mais li am solo mooy li am solo mooy booy Pikine yi booy nga xam ñoo dëkk nañ xam ni kenn ku nekk sa drapeau nga am quoi ni drapeau Sénégal ni amee noonu la quartier amee drapeau ñu bañ a nekk di suuxalante di defante lu ñaaw lu ñaaw amul solo ku nekk nag am nga foo war a far foo bëgg a far nga far fa mais li am solo mooy lii ndaw ñi laay waxal ñu fàttali lenn surtout maa waa Pikine ñu xam ne dañoo war a nekk benn jàppalante si combat ak si lépp yéen te jàmm mais Pikine lu tax nga lu tax ma xam ne Pikine maanaam dèjà lu bëri ñoom dinañ ko ñàkk te duñ ko tey bu nekkee benn dañ koy am bu nekkul benn duñ ko am Pikine boo taay toog si jotaay sax doo jote kenn dara mu bañ la loolu day bëri dafa bëri si Pikine dafa bëri ay défaillant mais nag loolu li koy dindi mooy nit ñu dëggu ñi nit yi naafiq yi mënuñu leen a rax loolu day am chaque jour mais yow mi nga xam da am valeur gëm sa bopp yaa ngi dégg da ngay xam ne si dèjà boo fa toogee tey di nga fa gis sa bopp man loolu laa gëm Boy Niang combat bi mënu ko woon a ñàkk xamal waral loolu li si laxasu moo bëri ba li si laxasu mooy Balla Gaye dafa comprendre lenn Boy Niang lim leen euh, daan na daan na rakam ñëw daan ko instant bi leçon bi mooy lan Boy Niang mi dafa nekk koo xam ne si dafa war a doon roi des arènes incha allah muloo dama koy ñaan na may Boy Niang sens ñu bëre mu bàyyi ko roi bi wala mu bàyyi ko Ama Baldé ndax ñun ñëpp benn lañ maanaam bu mu ko yóbbu faneen fudul fii ndax instant bi booy Niang ñi mu daan si làmb si géejawaay amul kenn ku leen daan même ama seen daanu leen lenn nag dama bëgg a lancer benn appel ndaw ñi yéen laay waxal actuellement nii nii ni ngeen gëmee làmb ji gëm ko na ngeen ko gëmee rew mi réew mi dafa war a changé ëllëg damay ñaan yàlla maki Sall bu fiy jugee yéen ñëpp ngeen taxaw mu jugee fi ndax xoolal troisième mandat du fi amee man révolutionnaire laa Pikine laa dëkk maki Sall na bàyyi xel ndaw ñi génn ñi incha allah dinañ génn ñëw génn ko réew mi du ma wàcc pompier du ma wàcc Colobane lu mu guddi guddi Pikine laay fanaan Pikine lañ dëkk barki rasulullah Pikine nga xanaa noo gisee tey làmb ji ah làmb ji neex na trop wax dëgg fa yàlla man Balla Gaye laa mais xam nga rek mais am ko boo ñaan dama koy encouragé Pikine laa dëkk dama koy encouragé waaw man ba dëkk mais Balla Gaye nga xool waaw Balla Gaye ama rek wax dëgg fa yàlla waaw ñoom rek waaw Balla Gaye ñu koy ñaanal rek ndam li jik ko daal waaw sama sama sama mbër la dem mais sa combat dama koy supporté yeneen yeneen yeneen kii mais tey moom Balla Gaye laa fara wax dëgg fa yàlla waaye waaw ah kii moom mas kii tey sa eh, Boy Niang sama sama mbër la tamit. gis ñu bëri la ni Balla Gaye a bàyyi loo koy bu mu bàyyi parce que man Balla Gaye bu ma koy supporté boobu bu ñu koy sa moom Issa Pouye laa commencé supporté ba heure bii bu mu bàyyi na baay ba si kanam. loo koy conseillé. ah li ma koy conseillé daal. na entraîné waat bu baax. Ah, déedéet màggetul de Balla xale bu ndaw la pareegul. barke Sëñ Bakos gul xale bu ndaw la. pareegul jeexalul ay ño booy ñaay ay ño booy ñaay man pikin laa dëkk du ma ragal man pikin laa dëkk doomu pikin laa ragal ma fii lan waaye mais mi mais affaire bi Balla Gaye la affaire bi Balla ay doomu Sénégal lañu ndam li tamit Sénégal fii lay nekk waaw ay jeex xeex ak yi jaru ko nañ kaf ree fu mu dugg tamit dafa kii parce que dasa am seen tamit gis na am mais moom moo fay combat parce que yow ba ba nga ba nga jëli jee boobi jël tànk bi nga tànk bi dis yow war nga bàyyi nga reculer waat toog xaaraat boo xool ba xam booy bi fekk wala du fekk si mais baaw daal la dafa ñëw saax saaxee combat bi moom moo yàq combat am pression bi maanaam lu mu daan lu mu daan Sa Thiès mu bëgg a ñëw taf tafee. waa xëy na loolu tamit loolu tamit ci la bokk mais mais ba mu daanee ba mu ba ah booy ba booy ñaa ñëwee daan euh, saa kees moom waroon nañoo xaar toog def ndànk xaaraat man doomu Pikine laa man du ma aw ma lu man ba Ama ah, Baldé ba keroog may dee barke Sëñ Babacar Si Balla Gaye rek rek Balla Gaye Ama waaw moom kase aw ma keneen beneen mbër bu dee nag booy ah, ñaar day bëre fene mën naa faral ndax combat bi passé moom a kii man moom laa faral moom laa faral combat bi passé booy ñaar laa faral barke Sëñ Babacar mais affaire bi daal affaire bi pikin pikin pikin géej dara amul histoire amul dara waaw jàmm rek gan gan gan gan gan bu daanul woon tey bu daanul woon tey billaay wallaay lamb ji dina lu tax ma wax loolu lamb ndaw la yàlla faral grand Balla ay guddi daf ma doon fay mais ray an yi ana ñu nekk Boy Niang moo fay déggoo ma de lii loolu mooy làmb làmb xale booy bi déggoo leen mu ko wax xanaa ku dàq bëre ku ëpp doole ku gën a sonn yàlla na la yàlla may ndam wala déggoo loolu déggoo li mu ko wax xam nga tey jii Balla Gaye ku na xam na ne champion la boo ko waxee wax nga làmb mais cey doomu dégool bi. cey doomu doomu aana bi. kooku. xoolal bi kooku daa ñaanal boppam. li tax mu ñaanal boppam mooy ndeyja. ndeyja da ko faa xaar. barki borom Touba. da may nag leen xam. bu baax da koo daj. da koo daj moo tax. bis bii du ko ñàkk. Balla Gaye daa am lu ko wax. dana ko ku daan ñun ñaar na dem gërëmi ji yaayam. booy ñaane ko. Boy Niang tontuwu ko bañ a jël. nga la jël. jël jël. kan moo daan ba léegi seetaan ma daan ah moo daan. félicitation neex a daan si mbër yi. te yii la may bojo bojo la. teel a tey dama ne. Boy Niang ndeysaan man Ndiaga Bongo lu ma dara solo yombul. waaye dama jaralu ne. Boy Niang naa la fu foo nekk. ñëpp la yaa ma man yaa leen man yaa leen man ndey du yombul. yaa leen man Boy yaa leen man yaa leen man yaa leen man. ndey du ñu benn te bàyyi yamul yàlla man ku yëngal boo ñaa mooy yëngal wax ku yëngal boo ñaa mooy yëngal wax way ku yëngal ah way dama ne Sénégal kaay leen gaaw boo ñaa moo njëga bongo moo ko yëngal Pikine moo gañe tey ñëpp kontaan booy ñaan nag ñu ngi koy ñaanal yàlla ndam li yàlla na ko jig Balla nag ñëpp xam nañ ko doon supporté waaye nag tey noonu la da ngay daan ëllëg nga daanoo waaye ku ne xam ne Balla mbër la man jëkk jabaram sama xarit la ñëpp xam nañ ko waaye nag yàlla mooy dogale noonu bëre moom daanu ak daan rek la waaw ña nañ ki am ndam yàlla defal ko. mais mais looy wax si gars yi ne Balla Gaye dafa war a bàyyi parce que waaw xam nga xam nga làmb noonu la ñun Moustapha Gueye loo fi nekkoon di daan du dëgg kon tey bu demee ba demee nii dañ koy comprendre rek xale yi ñëw may xale yi sens ku nekk sa sens rek la affaire bi loolu la dafay changé tey affaire bi mooy cenc ñu ci 2023 lépp nii lay demee nag. mais dafa duggaat fenn si Eumeu Sène. waaw ah ndaanaan la. ah ndaanaan la kooku suñu mbër la ndaanaan la Pikine la dëkk Pikine rek gis nga tey ni def tey dafa rafet la def tey ñëw ànd ak rakam stade bi toj. loolu la yàlla dogal ñu ne Pikine lañ dëkk loolu la yàlla bëgg amul ragal amul buri sama xarit la moom waaw xolam neexul di dëkk waaw muñ rek yàgg naa daan di ñu bégal waaw waaw dama ne Pikine ragal du fii dëkk père lay dundee combat bi combat bi lamb moo wane waat boppam euh, lamb moom bu dee da ngay suivre làmb làmb mooy wane boppam làmb ndaw moo koy def xale mooy bëree sport sax laay wax Balla toll woon ne guddi yu mel nii am na ay mag yu mu fekkoon jëlee leen fi ala kuleyaalin xale yee ko fiy jëlee mais nag dafa nekk loo nga xamante ni tey Pikine dafa booloo nekk kenn ndax boo xoolee Eumeu Sène bi mu duggee Reug Reug dugg loolu day dooleel mbër day jox mbër euh, fit da lay jom tey nag lamb moo wone boppam ndax euh, boo xoolee Boy Niang yàgg naa topp Balla Gaye Balla ne ko jëlal sama rak bi mu jëlee rakam daan ko Balla mënut koo moyt moo tax li am tey ji am ndax garab ci kaw rek la ñuy fekkente bu baax waa Pikine maa ngi gërëm bu baax waa Pikine maa ngi gërëm bu baax. jàmbar jàmbar jàmbar. di gërëm tey population Pikine yëpp di féliciter suñu rakk di masaw bu baax Balla Gaye ak bépp supporter am tey yu nekkoon ci stade bi tey làmb ji heure bii laa war a wax parce que ku nekk dafa dugal ay TikTok lu nekk mu wax ñu wax ma ko yaa ngi may dégg que nañu jàpp ni tey ñooñu di wax ci Pape Sarr Pape Sarr lekkul xaalisu mbër man du ma tàllal loxo mbër samay million ci làmb la dem ba tey bàyyiwuma waxoon naa leen waa Géejawaay bippe ngeen ñu bëri crédit. tey suba wax nga ma ko. barke Rasulullah yi tey hymne bii ñuy naan borom kagul bi. kilifaam laa dugal ci stade bi. hymne borom kagul boobu nit di ragal. keroog bi muy dajeeg Eumeu Sène. moo la dajeer dama dugg sol sama kagul. billahi wal kitaabi bu duggoon ci ci géew bi man li ma métti rek mooy bu buñ ma mayul ma dugg. barki yàlla su ma duggoon ci géew bi dinaa leen wan ni kii nit kese la. sama maam Labaat. muy Labaat Fall. ñëpp xam nañ ni transporteur la woon nekk milliardaire Ndiouga Kébé di milliardaire Djily Mbaye di milliardaire te borom kagul bi yóbbul seen bakkan yàlla mooy maye yàlla mooy joxe mooy yóbbu ruu yaa ngi may dégg est-ce nga mais boo ñaar ni mu bëree dama ne la mhm. sama sama sorti yëpp Balla Gaye boo ko bëggee daan tànk bu mu teg tegal beneen bi parce que damaa indi ñaari combat ëmb seen mhm. kenn écarté wu ma ma dugg ci digg géew bi mhm. Eumeu seen buy bëreeg Balla Gaye bu man lay mujjee waxal ak la ñang mhm. ma ne kii bu la daanee damay rey sam bopp mhm. parce que gis na arme bi ma yore mhm. barki yonent bi daa am lu tax lu tax tey jii ndam rek moo ñu jik Boy Niang billahi wallahi pare na tey tey c'est la premier fois Boy Niang ngeen bawul këram Boy wax la billahi wallahi li may wax mooy li may wax mooy lenn moo des Boy Niang Géejawaay Ahmed ay dara ko maire bi maire Géejawaay bu nekkee góor lañu wax ju ñaaw yi doon wax yëpp man jéggal naa leen waaye ay Aïdara amal ngor parce que Boy Niang ku mun a téye maire Géejawaay la. mais ñu gis Balla jël tànk Boy Niang lu ko dara. barki Rasulullah du ko si daan Serigne Touba laa la giñal barki Seydina Mohamed man damaa seetaan Boy Niang mu préparé mhm. Boy Niang kenn mënu ko gis fenn. kenn mënu ko gis fenn man dama ko téye mooy préparé ak Eumeu Sène Pikine yëpp dat xoolal téye ko Lac Rose <laughs> laay ñi dañoo dof sax maanaam Eumeu ak moo ko jox kele bi te ñoom ñu ngi naan Eumeu Sène bii di ñëw tuddee tuddee tuuma ko Eumeu Sène asib fer mu ngi amaat asib en fer Eumeu Sène moo jox kele bi Boy Niang loolu ngay wax ndànk yow mooy magam tey ku gis maa ngi dégg ñu naan Ama yee Ama di seytaane di jaxase Pokola tey won na ni ñëw gunge gunge magam Boy Niang tëgg tëggu ñun xam nga ñoo ñu sonal dëkkaan yi ñoo ñu sonal fii Pikine mais ñun dañu doon taxaw suñu kër di seen géeju waay billaay wallaay tallaay saa ñu amee ku gaañu ñoom ñun ñoo leen koy dencal fii ci almeri chaque jour bu ñuy bale ñu leen di ziyaareel seen néew nañu xam ne man ñu ak ñoom du ñu benn du benn mais bu ñu ñëwaatee si combat bi. waaw Balla ma ne la dama ne boo ñaa kii pour boo pour nga daan ko da tëj xel bi tëj xam-xam bi bokk ak moom doole xool faay bi booy Balla Gaye day benn Balla Gaye daa benn erreur Balla Gaye ñetti ball ñetti erreur la am ci làmb kenn dàq ko bëri nag mais daa benn. li mu mooy comme nga tibb suuf nga bës camion bi camion bi wàccee suuf si loolu mooy benn. bo bo tey Balla Gaye daa benn mooy premier combat Eumeu Sène Balla Gaye loolu mooy benn daa benn te ñaari soo xoolee Balla Gaye carrière am premier combat Eumeu Sène la jaaxaan ak tey ñaari jaaxaan mais nag tey xoola jël buñ ko daan man maa ngi leen di ñaan ngir yàlla ñu wàññi wax ji nee nañu ku bëri wax ki daan na leen kii day jëf douze victoire la am géejawaay douze victoire la am géejawaay jeexal na leen tàq daan mag daan rakk ci biir kër daan kot su bi kon nag kooku warul nekk meeru Géejawaay. mais sànq dañoo dugg Pikine. ñu bëri fu mu toll nii ñu naan Pikine nañ bokk ndey ak baay nañ booloo. bu ñu paree si loolu ñun ñëpp tey gis nañ saa à chaque fois bu ngeen booloo da ngeen am ndam. Mhm. tey yàlla def ngeen am ndam. Mhm. mais ñu bëri fu mu toll nii ñu naan boo ñaaw fu mu war a jëm mooy na ko Modou Lo may chance. non Modou dafa nekk si contrat. ak Ama Baldé te dugalul këyitam CNG kenn waxagul fu muy féetee dafa am combat ak Ama Baldé nit ñi pour xam ko tey bu nekkee demee ba nga xam ne Luc Nicolaï mënul tëgg Ama Baldé contrat boobu mu ne may na ko Modou may na ko Ama Baldé boobaa nag lamb dina leen boole mais mal booy ñaa laay wax sama rak sa tànk bu mu tegooti géejawaay sa tànk du revanche du combat kan la fay bëral jeexal na ñëpp la soccoo. mais ñu bëri ñu bëri ne combat bi waa Pikine dañ leen jëndoon ne. voilà kan la ñu jëndoon kan ma ne la maa gën a naqaree jënd Pikine parce que man à l'âge de 15 ans 16 ans la forme million lekk ko mm-hmm. sama dé fekk nañ ma fii ñuy bëre ak ñoom soq moo ma mun a seede ñu proposé ma ay millions yu bëri pour tuba yu am a seen billaahi wal kitaabi soqu moo may seede soqu soq mbër mun na ma seede damaa dem ba ci ëmma seen laajal soq li mu leen wax dama leen ngeen laaj looju soq ma ne leen ñii suñ ma joxee seen xaalis ay tisat ak billet laa koy jënd ba pare indi Bécaye Mbaye ma wane xaalis bi gis nga lii nii lii la Balla Gaye mujjee sotteekoo ci digg géew bi kilifa boobu di ko jox borom kagul bi moom laay dugal ci stade bi maa ngi ëpp nee naa du milliard du million mais ay pexe la ku fanaan ci ci stade bi 18 jours ma ànd ak ay boy chaque jour sama alal ma jëndal leen sandis saako cinquante kilos la ñuy sulli ci stade bi. mais loolu daanu. ñi am na ñuy wax revanche man na am diggante booy Niang ak Lac de Guiers. non lamb la. la mhm. xam la Lac de Guiers man Lac de Guiers li des sama dund. Mhm. dama ñëw oh, Lac de Guiers li des sama dund. Mhm. li des sama dund man. dootuma ko waxatu lu ñaaw. muy nit ku baax. xam ne xam ne la ku baax la seen rek. butéel wax léegi ne xam na benn benn village bu ñuy wax Ñanduxum. kooku mooy titulaire borom kàggul. déggoo ma ne la sama téléphone moo fay kon ma won la photo normal nee woon naa la du yàlla ragaluma ko non bàyyil ba ma def si code bitel bi Pokola laa koy dencal. la lamb du xaalis pexe la ñun am nañu pexe man laa la wax nii maa dugal Eumeu Sène ñaari victoire yëpp yu mu am ak Balla man Pape Sarr. billaahi wal kitaabi man damaa ci dara billaahi wal kitaabi xam nga loolu tey la def 18 jours ñuy fanaan ci stade bi 32 personnes. dem gis na leen fa. dem jours saako 50 kilos lañ fa ay xool nga jël ginaar jël ay puso yu bëri duggal ko ci ay lango loolu noonu sawaay ñun dañoo fanaan ci stade bi ñooy taal lamp yi ñoo koy fay ñun dëkk fii nga ñuy rey suñu stade fa laam ñooy taal lamp yi ñooy fay ñooy tëj buntu yi fii lañ dëkk. non non non ñun sekkuñoo kenn ma wax rek te yàlla tax képp ku nekk ci ci ci Balla wax dëgg yàlla ñëwul si ñun ñun suñuy ñaankat doy nañu te affaire mystique u Balla Gaye ak booy Niang man xaw ma ci dara mais xam naa ni man jëli nañu koo xamante ne jëli nañu koo xamante ne sama digganteeg yàlla lu borom kagul bi defar mu yàq. non moo ma ko jox moom laa àndal mooy bu mooy ñi ki nga xamante ne waa kër booy ñaa comprendre ñu woon mu takk masque bi gars yi di ko dàq kooku la woon. maa gis nañ gis nañ ku takk masque bi jël benn kii daa teg si kaw. bu weex voilà kookooy ndaanaan bi ak def si code. buuba ak Balla mais buuba def si code ñoom dem nañ foofu buuba def si code mu xam ne man sama xarit la ñu proposé ko ay millions yu bëri mu ne man du ma ñaanal kenn ndax Pape Sarr. buuba def si code maa ngi lay gërëm bu baax kii doom rek laa ko war a tuddee ay millions lañ ko proposé ñoo xamante ne du Aziz Ndiaye nag du baay Ndiaye ay soppe Balla Gaye pour Balla Gaye am ndam mais billahi daf leen rejeté kooku noonu dinaa ko fay ba wis ko kooku mooy gor ay millions man musuma ko may cent francs mu xam ne ni Pape Sarr am na nu mu mel Pikine du ma ko xañ lii mu ne leen man foraluma kenn billahi wal kitaabi te bu mu ñëwee tey ci stade bi daf maa woo mu ne ma Pape Sarr bis boo coowee ñàkk làmb ji mooy bi may xatraay pour dugg ci borom kagul bi dama doon sumi kagul bi sang ko man duma ma ragal ñooñu man Thierno Mountaga moom a ngente Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ak ak ak Seydou Nourou Tall ñoom a ngente tufli sama nopp bi man du ma takk sax fas man ba bokk ak géew Modou boo ko ak balagay boo ko bokk ak géew Lac de Guiers kenn gisuma ma tàpp ragaluma leen du ñu yóbbu gars yi nag yooyu dañoo mën a nappe tey nag indi na mbër daanu na jël bu gaaw nañu dimbali nag ci kagul bi léegi nag seen CNG laay wax ñu def seen liggéey dañ ko fi tere ñu bàyyi leen mu dugg CNG laay wax di masawu Balla Gaye bu baax dégg naa dafa damm waaw loolu lañ ma wax nee dañ ko daan ba mu damm ah waaw daa damm mais mais mais loolu loolu lu muy firndeel parce que Sénégal yu bëri boo ñaa sax doon wax naa ko màggen nga wala loolu gaynde gu mag bi ci làmb dafay xuuxalee du mat du mat dafay xuuxalee way boobu noonu nee na boo ñaa mbote la daa jàpp tànk bi loko ba mu jeex nee nañu Balla Gaye moo dàq bëre bala Gaye moo ëpp doole Balla Gaye moo ëpp xaalis Balla Gaye moo ëpp ginnaaw Balla gay moo ëpp doole waaye ñoo leen ëpp pexe pexe la ñu tey pexe waaw non kooku dañu koy soccoo soccu guro la kooku laaj ma leneen kooku dañ koy soccoo. mais est-ce que fu mu toll nag Eumeu Sène. maa di wax Eumeu Sène del wax asib fer. asib fer sooy wax diggante Eumeu Sène ak Balla Gaye loolu asib en fer la barki Seydina Mohamed xoolal man instant yii nii xam la lan la ma Pikine war a def chaque mercredi ñu jox ma ay àllarba.